eca euh, voilà mbokk internet yi comme ni ngeen ko gisee rek euh, ñi ngi fi nga xamante ne rek moom moo di dëju yaay Zos ñu gis Papa Sow nag mu ñëw euh, fas yéene indi njaalam moom itam dañu koy rek bàyyi mu daal di ñëw def quelques témoignages du ñàkk itam kàddu yi nga xamante ni euh, dana ko dénkante rek ak askanu Sénégal ndax itam mbër yi moom comme ni ñu koy waxee euh, benn lañu rek gis nañu Papa Sow moom itam mu daal di ñëw ngir rek indi euh, njaalam ci rek daju ki nga xamante ne rek moom moo di ajaratu juma dañu koy daal di bàyyi rek mu mu tamit mu def quelques témoignages papa ñi ngi ngi lay ngi lay ziar ñu bàyyi rek nga def voilà quelques témoignages ci li nga xamante ni moom moo di rek dëj ñuy taxaw Papa Sow nga xam ne bëri naa Zoss aller retour làmb moo leen boole woon euh, tey yaayu Zoss génn euh, génn àdduna mu teew fi dafa yan témoignage nga ñu mën a defal ngi ñu ngi jaale Zoss Garga Mbossé Moustapha famille yëpp ñu leen jaale sunu yaay ji génn àdduna ñaan yàlla xaree ko àjjana saraxam yàgg seen loxo ak ñam fa fekk yëpp waaw. yan témoignage nga ñu parce que Zoss tey yaakaar naa ne bokk ci ñi démarrer combat tëgg mu dem préparer ju États-Unis. waaw yaayam génn àdduna waaw muy lu métti ah tey boo xoolee ñoom presque góor kër yëpp ñu ngi ci àll bi. Mm. xam nga dëju distance moom moo gën a métti boo ko jëlu nii sax mooy gën a yomb ci yow mais bu la soree day xaw a day waar quoi. Mm. mais leen ñaan rek yàlla leen yàlla dafa xolu muñ ñoom ñëpp muy grand Moustapha Garga Mbossé Zos mm. yàlla may leen xolu muñ. tey lii yàlla na fi gëj quoi. te ne xam na ni yaay dafa fort ñàkk yaay moom dafa xaw a diis quoi mm. mais ñu rafet si jot rek day dernier jour yi li yàlla wax si jërmande yëpp waaw ñaan yàlla daal lañ fay la ñuy daal yàlla na ko yàlla defal incha allah. waaw maire bi nag man miinu moo ko nag quoi mais xam naa Moustapha mox ma Ousa ñu daan ànd mm. xam naa Garga Mbossé ñoo bokk génération di bëre xam naa euh, Zos aussi dem ñoo bokk làmb ji di bëre mm. ñu ñu baax aussi tamit nit ñu baax lañu ñu ma soo xam si famille trois personnes laa ci xam mais ñëpp euh, moom zéro faute quoi macha allah mm-hmm. waaw ay nit ñu baax lañu. Mm-hmm. papa lii la la ci mbër yi war a jàngee rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngu ci làmb actuellement mm-hmm. ba nga ak sos. tey génn àdduna. nga bàyyi lépp fii nit ñi cee jàng xam ne làmb. liggéey la mooy day jeex mais ñu rafetal ko. waaw moom làmb moom liggéey la rek lu éphémère lu gaaw la ndax boo xoolee jàngatu doomu aadama bi booy dund mu am vingt ans ak diggante vingt ans quarante ans diggante quarante ba quatre-vingts ans. diggante boobu moo ci gën a am solo mooy da nga ko war a préparer am nga 40 ans yoo xamante ni da nga war nekk nit ñi nekkin bu rafet mu diggante 40 ans ba nga am 80 boobu ëpp importance lépp moo tax boo nekkee ci mbir nekk xale daal xam yaral sa bopp sàmmal sa bopp ci lu bëree bëri te xam ne àdduna du dara àdduna bi dafa jeex a pare du dara quoi mun gën a defa toogaay rek quoi dañuy wax ñëpp rek quoi ñu ngi koy jaarale ñëpp ngay dénk supporters yi parce que ñoom itam ci làmb la ñu bokk tey euh, parfois ñu gis ñaari mbër yu nga xamante ni dañuy bëri seen supporters di ci gaañante ba ci ba ñenn ñi sax di ci demante l'hôpital tey boo amoon euh, kàddu yoo xamante ni moom ngay dénk supporters yi ci wàllu woowu. waaw sport nag moo moo moo baaxoo violence mais ñu jekkalaat toogaay bu mu la sànq daan jekkalaat toogaay ki faral ki faral tey jii ki faral Zoss ak ki faral Ada li génnul Ndakaaru génnul Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi sport nag victoire la défaite ak nul moom ngay yóbbu yàlla moo xam ki li gën ci yow nga koy ñaan rek mais ni supporters yi bañ a dund ak euh, di ko dundee lu génn cadre sport dañ ko teg ci sport rek te xam ne sport day jeex ñooy mujj nekkaat nekk ay gaañ ñooy demalante ñooy dikkalante comme nii rek fa lay mujjaat rek la quoi. inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna sunu boroom lañ jógee ca defe naa ni fa la ñuy dellu yaakaar naa ne bis bii moom ku ko dul fàttaliku nag lu la neex defal bis la boo xam ne ni mënul ñàkk ndax ku bañ mu am rek bul juddu ndax yàlla bind na ko ba pare te defe naa ñu ñëpp ci la ñuy jaar defe naa ni bu fekkoon doo am naa Mohamed du dem mag ñu baax ñi du dem kon defe naa ne bu suñu yaay ji jógee fii ci weeru koor wi rek am nañ ci yaakaar muy yaay joo xam ne vraiment bëri na ak doomam muy Zoss mais wallahi jour bi ma ñëwee ci moom di ko taalal samay loxo dani ma dara wuutaloo li ma juree comme Zoss Saliou muy lu xam dafa dugg ci moom te avant boobu daan naa dégg bu ñu ko jëlee ci site boobu tàngoon na defe naa ñëpp xamoon nañ ko maag so suñu fukki bu njëkk ba mu guy gi sama doom la Zoss sama doom la waaye man guy gi sama mbër la dama ko bëgg loolu loolu dafa ma sogee kon defe naa ne tey seen papa wàññi ko ma ñëw fi seen yaay wàññiku ma ñëw fi loolu man suma war la su wareef la parce que defe naa ne yàlla na yeex bu doon man it noonu lañ koy defee te ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay adversaire lañ pour trente minutes rek te image yi day wan ni ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñi nga xam ne ñoo indi la supporter yëpp ñu xam ne ñun eh, dañuy dañoo fay dañuy jaay lamb jàmbur mais duñ ay noonu bu doon ay noonu tey Zoss maa moom barki démb rek loolu lañ yàkkante kon dooma fi seen mais loolu pour suñu image la moo tax ñu koy def di ñaan daal yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana cat bañ koo jiitu ci bàmmeel am nañ ci yaakaar ci weeru koor bi mu génn yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def ñun nag wax dëgg yàlla jàmmi xeeb rek lañ di ñaan ñu ngi naan daal lépp luñ ñaan ci weeru koor yi ak lépp lu mos a ñaan yiw yi yàlla na ko fekk ci bàmmeel ak ñi mu ko fekk ñëpp yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def parce que ñun amuñu dul tamit kon ñaanal suñuy mag wala ñaanal suñuy waajur wala ñaanal koo xam ne vraiment dañuy jariñ te lii rek njariñ la njariñ mooy ki nga xam ne moo la tett indi la ci àdduna tette la tette la ba nga toll nii bu la waree ginnaaw li nga mën ci moom lenn rek la mooy ñaanal ko. waaw am nañ ci yaakaar bu baax na mais li ci gën a tiis mooy sa waajur génn am wala ban yëg waaw suñu borom moom moom dogalam am na ñu tukki moom ñëw ñoom ñu tukki ñoom ñëwuñu. loolu loolu lu ko gën a métti amul ku ci mel raam daan ñu ngi koy jaale bu baax a baax ak ku ci mel ay diwaan dem nañ États-Unis di liggéey ngir seen famille. ba tey gisaatuñu ñu fi bàyyi woon loolu moo gën a métti mais comme que suñu borom def na ba nekk mesure ba xam ba mu teg leen ci yoon ba kenn ku ne mën a demal sa bopp kon def naa li ci des rek ñu ñaanal ko teew yàggul dara dina ñëw demee wala fa demee bu ñëwee xam ni kat vraiment li leen war mooy soutenir gan yi waxtaan ak ñoom ñaanal seen waajur. tegawaat seen seen waajur fi mu tege woon. Mm-hmm. Mm-hmm. déggante na ñoom ñaar waaw déggante na waaw démb woo naa la pour nga jox ma numéro yi ñoom ñaar. Mm-hmm. déggante na ak Garga. déggante na ak Zos. mais Zos moom affaire moom da koo téye ba tey. waaw mais Garga moom waxtaan nañ vraiment après ci la mel sax Cambérène lañ koy rob dafa ma message sax après parce que xam naa parce que waajur ñàkk waajur dafa metti surtout waajur jigéen yëpp dal la ku fi des sa daal nan ko topp bu baax a baax a baax a baax mu jaral la sa bakken bi loo am nga defal ko ko parce que moo sa ñaan bu la wanee ginnaaw bi nga koy gis doo ko xam mais bis bu la wanee ginnaaw di nga am na ñoo xam ne ñi ngi ni siiw amoon ay milliards joxe woon ko gisaat seen waajur kon ñi des waajur rek parce que nit ñun dafa am génération dañoo tàmm benn baat damaa bëgg dimbali sama yaay toog ci télé bi ba mbër boo daanee non non yooyu jërul di wax. Hmm. boo boo di bëgg yàlla moo la gën a xam li nekk sa sa xol bi. def waaw da koy def boo ko defee rek immédiatement yàlla na la ci jàppale mais am na ñoo xam ne ñu ngi koy jëfee sax te defuñu ko bu ñu benn dix mille wala quinze mille sëriñ bu wóoleel ñu dem fa daw jox ko ko seen yaay soxla mille franc nga lànk sa yaay yónni la des fois sa baat gën a kawe baatam yooyu général lay taral hmm. waajur yi nañ ciy def lu naturel loo xam ne nii buñ waxee ñu dégg buñ jëfee waxee ñu jëfee ko suñ teree ñu bàyyi ko parce que nday baykat moo fi jiitu sëriñ nday bàyyi fi jiitu sëriñ te sëriñ bi da nga judd yàlla ne la bu war la ne la kii euh, bu la neexee nga xool ko mu yóbbul si suñu borom nga ànd ak moom ci loolu bu la neexul nga xoole keneen ki nga xool mu doy la mu nekk sa la nga ni kii kat jox naa ko suma kurus jox na la werd dama bëgg mu yóbbu suñu borom mais boo juddoo sunu borom ndey ak bàyyi lox moo fa jiitu sëriñ léegi nag kooku nag di la yóbbal sunu borom ak ki nga xam ni moom moo la ji moo jiitu ci yàlla bokkul kii da nga naan di la yóbbu borom pour wan la àdduna wan la àllaxira dafa am nga liggéey ci àdduna pour mën a pare pare àllaxira léegi nag ki nga xam ne tey moom moo la tett ci àdduna muy sa yaay di sa waajur te nga xam ne def nga ko lu ne sonal nga ko ci côté bu ne loolu duñ ci sori ñëpp xam nañ ko waajur ni muy ni ni ni muy ni muy matoo tey métti day métti parce que sama benn benn bis ma gis muy am doom mu naan yaay baax na yaay ma xam ne lii métti na am dafa ñun amuñu lulul santaat sunu waajur yi di na yàgg ki fi desewul yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana loolu daal lañ amoon ci luñ ci wax kontaan nañ ci yëpp yéen tamit am yaay Zoss ak Garga Mbossé génn àdduna yan kàddu nga ñu mën a waa di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xam nga di ñaan yàlla aji dem gi yàlla na ko yàlla yërëm jégal ko xare ko àjjana di ko jaale Zos di ko jaale Garga euh, di ñaan daal yàlla yërëm bu baax jégal ko ay bakkaaram bis bi mu dem tamit xam nga di bisu Laylatul bi bépp ñaan bu si ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu mu jëlee ko ci bàmmeel lépp nekk ay ngëneel ci moom yàlla na tërë tëraay bu sedd waaw àdduna nag moom nii la naqar ak bànneex ñoo ànd te Zos bu nekk nit koo xamante ne vraiment yàgg nañ daje si yu mel nii mm-hmm. bu bu dalee beneen mbokk mu ñëw di ko teewee kon tey bu ko dalee moom dañ koy mosaw rek moo tax ñu ñëw teewal ko di mm-hmm. xam àdduna nii la daal mm-hmm. Ibulaay li ma laaj ñaari daal laa lay di laaj lan la ci nit ñi war a jàngee rawatina particulièrement mbër yi nga xam ne léeg-léeg ñaari mbër seq contrat loo xam ne ëllëg même bu ñu kenn ki day am gàcc ñoom dañuy am gàcc seen biir te bis yi mënta ñàkk waa ñàngat bu rëy la parce que rek day tax euh, nit nit ki di gën di rafetal rek diggante gën di sellal di rafetal si ñaari diggante yi man damay gis sax mbëri parce que ñoom ay dëj rek la ñuy demante mais dañ si war di boole sax ngénte mbër bu ci am tudd muy bànneex war nga ko waxal sa morom mbër yëpp tamit ñu ñëw teewal la waaw àdduna moom bànneex ak naqar ñoo ànd vraiment comme li fa del wax jàngat bu rëy la boo xamante ni mbër bu ne mën nga jël exemple que boo jëflante sa morom mbër ngeen xam fa ngeen di yem bañ a dépasser les limites parce que day tax nga sóor yi daal vraiment waa ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen gën a masaw mm. muy Garga mboose muy Zos mm. waaw di leen wax nañ nañ muñ parce que tamit waajur bu génn mm-hmm. dafa metti mais tamit yàlla moo moo moo bind mooy jël donc bu bu ko defalee nii rek dañ ko ko sante rek waaw di leen ñaanal rek ñu am ko lu muñ jëf yu laaj ñu ngi lay jaal yow tam di la jéego yi nga dox ñëw yàlla na yiw te yàlla fay la amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci